سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر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 sëriñ bi it waxaat na leneen mi nga xaye ne mi ngi bëgg a dem te kenn foogu ko dikk na fi xay boobu tiim néeg Cheikh Rafaal bi sëriñ Tuubaa demee toog fa bunt ba ci romb jaan woo kilifa yu bari ba nga xamee dikk naa fa sa baxaay say mbay dikk na fa nu ànd ma yor meewum gëléem say mbay yanu say ma tuyaa ko këllam ba nu dikkee ba say mbay jébbale loolee sëriñ bi daal di wax ne nañ ma woole ma jëmb si ak Omar Batoor ba ñu dikkee sëriñ bi nee na seen ñaari Abdou Samad ya day laa bëgg a gis tey dem ñu ngi fi waaw day na seen yaa ngi fee ñu ne ko ci nekk na ko man de sëñ Abdou Samad sëñ ma jëmb tontu ko sëñ Omar Batour tontu ko ku nekkoon na man de sëñ Abdou mu ngi ci kan mu ne nii gune yooyu laa bëgg a gis tey ñu ne Abdou Samad ba tey mi ngi fi mooy Abdou Samad Sylla loolu sëñ ma jëmb si mais nag faatu woon na moom yàgg mooy maa ngi sëy du moom ba ñu dikkee ñu ne ko gone de dikk nañ sëriñ bi ne nañ leen yaatal ba ñu agsi fi ma xool leen ba ñu dikkee bay bëgg a toog sëriñ bi ne déedéet taxaw leen rek mais ku wóote rek sëriñ daal ne dem leen ca gannaaw mag ña toog dama leen a bëgg a ñu sax saa bët rek ba ñu demee ba toog sëriñ bi daal di wax ne man de yaari gune yi ak xay ji dañoo xam ne gàttatuma fan. ñoo ne. ñoo ma xamal ne gàttatuma fan. yaari gune yi maa yar seeni baay ba dencal leen kër ba ku ci ne boo demee ba ci kanam tuuti mën a wutu sa baay xay gi bañ ko jëmbatee. maa koy soxat sama satla gi ba màgg tiim ma meññetam àjjana xay gi lañ ma ko jëkk andili ci àdduna sëñ mbay saar daal di jóg summi daraa jëm yoroon daal di koy laxas ca xay ga yeewa yeewam ne modd mu def yaramu neen sëñ bi ne ko waa Babacar Sarr yi maa ngi tooy def yaram wër loo ci jublu mu ne ko ah, yàlla kat man garabu àjjana faaw mu wadd ko ndax ma lekk ca meññeen bi sëriñ bi daal di ñoddi kaala ga muuñ ne ko jar na ko sax de jërëjëf ne ko jar na ko sax de jërëjëf am ci mag ñi kenn ko daal di fab kaalaam daal koy sànni sëriñ Mbay mu terax laa ko ci ci ndoddam sëriñ bi ne ah man de tey li tax ma woo den buur mag de tey ñëpp lu ma ko daan dàqee mu daw def naa ko tey mu tël mu nga jóge ca xojal dikk ci këram ngi ci ndum ko ne xulli mel ni siñu lu màggat rek daal di wax ne man nga yor lu bon wut si ma ma ne ko boo lagsi de mu ne ma gis nga sama lu bon lii ma yor ma ne ko ah ne ma sa kër gi laa koy xëpp si ma ne ko maa gis nga sama xepp lii ma yor mu ne ah ma ne ko boo ko fi xëppee ma la ko loola moo xam ya wax loola wax nee na mu daal di meccu ne ma loo ma fi defoon yàq nga ko sama band yëpp doñ nga yëpp sama xol tàng na waaye nag léegi sama xol dal na sama xol a ngi bëgg a sedd ma ne ko lu koy seral mu ne ko fayu bëgg a fayu rek mu ne na ngay fayoo mu ne ko man xam naa ko danaa la ko wax sax ndax mënatoo ko fa yow lee nga dem yaa ngi bëgg a dem feneen lu ma xam la waaye mayit mën na maa jaar ci xasaay yi nga xam ne taalif nga ko ba am ci dara joo xam benn yoon na musu am ci àdduna lëggéey nga yàlla yonent bi lëggéey boo xam ne benn musu yonent musu koo lëggéey waaye nag xasaay yi kat boo ko yenu yóbbu fi mu koy bàyyi sa taali bii nag moom dong lay leen amee sa gannaaw may am naa pexe moo xam ne nii fu ñu daje ba di la ko namee mu di ko sotti foo seen xol ñooy foo ba asamaan set ma yóbbu mu ne ma man de tëj ma ma dem see doom ñu tëma ma dem sa taarix yi ñu tama ticc wante nag sët yi ñëpp dañoo bokk te man foo mën a jaar daal am naa fu ma jaar ndax fa la yàlla maye fa la ma maye fa ma maye ak baax fa la ma maye ak bon fi mën a ko yaag cat mm-hmm. loolu nag loolu Iblis wax sëñ Tuubaa dëral na ko dana nafsi wa diini suma ahli wal walad del wax ne dami wa ahli wa awlaad yi mais sama jëmm samay xasaay samay saadix samay doom della ko wax della ko baamtu ne nafsi wa diini suma ahli wal walad xanaa mu ko dami wa ahli wa awlaad yi sama jëmm samay xaseet samay saadix samay doom nee na doom yi mënuñu ñàkk waaye nag saadix yi ñoo jiitu ndax kër goo si mu rafet saadix yaa ko liggéey waaye doom yi liggéey bi kon nag ñoom ñaamee liggéey bi ñoom duñ mën a ñàkk <laughs> te doom yi duñ ñàkk mukk mm. ndax samay doom daal di wax ne foofu sax dañoo bokkul waxtaan bokku woo ko ci waxtaan bu cat waxtaan bu gudd dégg nga sëñ bi lu baax te bis kat ak buum dagg na léegi tënkan naa ko baa dem ci géej gi ba yeew ko mu ne mu mu ne tudd dara sama gannaaw bi ma dikkee ne mun nga dagg nit ñu ngay liggéey may liggéey maa ngi fexe nag ci saab liggéey man la ma liggéey di mënu ci dara xaw ma nag la ma liggéey waaye illaa yaqinni yawman jawaama aqaafuhu wali aj murooran xaajal sama kalbarxi hmm. foofee hmm. ñu taxaw juróom fukki junni ci at ñaqare la mel ne taw koo mën a yaakaar lu dal jàmm rëy rëy rëy rëy rëy gannaaw telu ma leen xamal gisaguma ak yàlla ba xam ne mooy dafa moom ana foofee lu fa xew yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati xayra man rahim ಬೇರೆ ಸುಳ್ಳಾಯ್ದುಕೊಂಡೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಲಿ ವಾರ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಸಿದ್ಧರು ಮುಂತಾಲ ಮೈ ಫ್ಯಾಕರ್ ಸಂಬಂಧ ñooñee nag mooy ña nga xam ne la seeni loxo mën na nga ko ñuy xiif di rafle di mar booleeg seen jaamu yàlla bawuñ ci semble gi dara bawuñ ci jaamu yàlla gi dara yaddaxoon jannata waraan isaa fi dunya wala an na maa ñoom ma faw ñaar fukki ak juróom fi moom pusa <coughs> yàlla ma ngi ko ma ko mottalee ca penc moom mu ngeen wu sotti woon mm-hmm. da ko wax yaa yoon mm-hmm. ndax ñooñu nag ñoom la àndal ca barab boobee mm-hmm. mu si mooy sama ndigal ñëpp lépp lu yàlla digle daw nañ ko ne ko ñebbu ko ba mes xanaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala salaatu lazi fi kulli